al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam yaa ayyuhal ladiina aamanuu kutiba alaykumu s-siyaamu kamaa kutiba alal ladiina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون conférence du ramadan ak kër Serigne Touba Ourossogui jeudi 24 mars 2023 euh, par docteur Ousmane Gueye chirurgien directeur de l'hôpital de Ourossogui conférence organisée par le daïra Khidmatul Khadim de Ourossogui asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokk bi yëpp nuyu mbokk taalibe yëpp tey la alxamis di 24 mars 2023 fii ci kër Serigne Touba ñu fas yéene indi waxtaan boo xam ne daayira xidmatul xadim wërëso bi ñoo ko organisé ñu waxtaan yi faral def ci kor gi ajuma bu jot tey nag mu am mbégte lool yéen sant ci yéene yi ma boole ngir ma leen waxtaan bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram man la seen mbokk seen xarit docteur Ousmane Gueye di chirurgien di directeur hôpital bu Ourossogui waxtaanu tey jii nag ñu ngi ko jëmale ci li ñuy wax système immunitaire de l'homme constitution acquisition et quelle place pour la vaccination maanaam dëgër laay doomu aadama kaaraangeem nan lay bindoo nan la koy amee lan la ci ay ñàkk mën dolli bu ñuy wax kaaraangeem doomu aadama ci ni mu bindoo ci wàllu wér gu dañ koy tàmbali ci balaa muy juddu balaa muy juddu sunu borom daf ko wutal kër dénk ko jëmu muy jigéen këram di buti ci njurukaay suñu borom defee ko noo xam ne day kër gu aaru lool goo xam ne nettaliwuñ ko sax ba yaayam daanu woon fenn sax moom du ci gaañu ndax kaara ngi ca nekk lu bindoo ndox ma ci biir lu bari ci ay jàngoro itam mënuñu koo fekk ci fi nga xam ne fi la nekk mu di fa fo di wëndeelu di am mbégte muy foo xam ne daal fu mucc la ci noonu muy màgge ci biir biir yaayam itam am cër yoo xam ne suñu borom daf koo defal lu mel ni la wax timis ak cër la boo xam ne mi ngi nekk ci ginnaaw saatu si dënd am lu ñuy wax amygdale mu mel ne ay bul mel ne ay càqar yoo xam ne mu ngi ci biir boli bi ci làmm yi muy yam rek ci pegg foofu lay nekk nekk ñaari bul am ci cër bu ñuy wax gàddaam nga xam ne ñu ngi féete càmmoñ mbàqu doomu aadama nekk ci suufi faari càmmoñam ci mbagg mi nekk jëm ci suuf ci ginnaaw ci suufu faar yi foofu la gàddaam boobu nekk muy lu aaru am itam càqar yi nga xam ne dañ koy fekk ci poqtaani nit di ko fekk ci ay butitam di ko fekk bu baree bare yooyu ko yàlla booleel dafa mel ne ay camp militaire xam luñ ko misaale tey boo jëlee soldats yi camp militaire yi léeg-léeg wute ak liggéey ñu ne bataillon blindé yor ay char de combat yooyu wala ñu bii ñoom wàllu jaww ji la wala bataillon bii wàllu géej la amee ci nit boo jëlee tey lu mel ne boobu ñuy wax timis ñu nekk ci ginnaaw status de nit dafa bari dafa bari lool nu mu ko jëriñ ci kaaraange waaye su demee ba màgg ba juddu ba commencé dëgër loolu dafay daal di commencé di seey ndax liggéeyam jeex na boo fa desee sax mën na dem ba ëllëg mu indi ko yeneen jafe-jafe jëm ci xeetu cancer nekk yu di ko fat di ko noy dina saxal aw yaramam amit daal yooyu nga xam ne moo nekk ci fi yi sax soxe sofe nekk ci pegg yi ci bëli bi ah bul yooyu itam dafa bokk ci li aar nit ki ba muy liir ba liy jaar ci gémmiñam lépp lu jaay infection di doomu jàngoro mu mën a xeex ak moom ngir jële ko fa amit daal boobu sax itam su nit ki dee màgg daa war a dem ba jeex tàkk ba doo boo ko xoolee doo gisat su fa defee sax te dem mooy waral li ñuy wax ay angine à répétition mu nekk genre feebar waxu boo xam ne day dem rek gàddaam bi itam nekk ci suufu faaru càmmoñ yi moom itam dafa am lu muy liggéey lu am solo ci wàllu kaaraange nit waaye su juddoo ba dëgër mu commencé di wàññiku di wàññiku ba nekk lu tuuti su boobaa nag liggéeyam ci wàllu kaaraange googu dafay jeex daanaka la ci des du am solo rawatina bu nekkee mag waaye su nekkee mag ne dafay nekk loo xam ne dafay daal di nekk li ñuy wax cimetière des globes rouges maanaam armeel yi deret bu dund téeméeri fan ak ñaar fukk ba faatu fa lañ koy rob moo tax léeg-léeg daf ñu xaw a jaaxal suñu gisee am koo xam ne dafa feebar te màgg boo seetloo côté càmmoñam gis gàddaam bi rëy lool ci fajum cosaan nga gis ko naan day faj gàddaam day gàjji fi tolloog moom muy lu ñu xaw a jaaxal ñun ndax dafay mel ni ab dëkk boo xam ne feebar dafa dugg wala dëkk bu nekk ci guerre nit ñi di faatu faatu ku baree baree bari ñu yokk armeel ya di fa gën a denc ay néew armeel yi gën a yaatu am ku ñëw moom xoolul lan ma war a nit ñi faatu mu jëncee indi saafara waaye dafay gis ne armeel yi daal dafa gën a rëy gën a yaatu kon man damay ñëw ngir wàññi ko jàppe ne wér-dëgg yépp mooy armeel yi daa rëy di jéem a saafara àmmeel yi te di jéem a ay néew wala wutee dafi caxar moom ku ne xam na ko ndax ñu ci poqtaanu tànk li ci ëpp dañ koy lam di ko daj dañ ko fekk itam ci suufu ngaam bi du ko fekk itam ci baatu gone li ci ëpp muy aar kon gone ci lépp luy jàngoro bu jaar ci ay bën bënam lu mel ne ay noppam ak gémmiñam ak yu mel noonu ba loolu moo tax itam saa bu nit amee càqar wala su jàpp ne càqar bi mooy problème bi mooy jafe-jafe bi war koo faj ndax da ngay gis ko naan sama càqar yi day métti sama tànk bi daal fii sama poqtaam tànk bi càqar laa fi am jàpp ne mooy feebaram di ko faj déedéet su boobaa dañu war a xool li tàmbalee ci cati baaraami tànkam ba ci poqtaam tànkam ndax amul lu fa nekk loo xam ne moo waral càqar boobu am lu mel ni ab góom ak gaañu gaañu wala la koy yées mooy am na xeetu cancer bu ñuy wax mélanome boo xam ne day fay dal lu bari ci ñu weex ni ndax ni seen dal bindoo bu ñu nekkee ci suufu jant ma nañ faa jëlee feebaru cancer boobu ñu wax mélanome ndax amuñu kaaraange gi nga xam ne nit ñuul daf ko am ci ñuulaayam boobu moo tax suy dal nit ku ñuul ci fu weex ki la koy dal rawatina ndëggu li ko su nit amee càqar ñi ñuy xool tànk yi tàmbalee cati baaraamu tànkam baaraam ya ba ci poq daan tànkam wala ñoo xool lépp xool ndëggu li ndax amul benn tâche bu fa nekk boo xam ne dafay mel na luñ ci ab peinture buñ ci jàllale bu ñuul te boo ko xoosee du dañ te du metti loolu màndargay cancer boobu ñuy wax mélanome la te cancer bu gaaw a rey nit la su ko nit gisee nag te gis na nit ki dafa yor ay caaxaan ci poqtaan tànkam kon dafa war a teel a dem ci hôpital bu mag te ñooy yëngu ci wàllu woowu ñu teel koo xool teel ko faj kon càqar dafa mel ni ak camp militaire tey boo dëkkoon ak camp militaire lu mel na juróomi at nga nekk ak moom mu soo fa dégg dara nga jekki-jekki dëgg camp bi yëngu lool bari yëngu lool ba jaaxal nit bu dee suñu tëb tëb rek ne camp bi day am na lu fa xew ba di wut saafara dañoo war a xool ca frontière ba ndax amul lu fa xew ba tax militaire di waaj defaraat seeni jàjj di seeni bagaas boo xoolee nag ci frontière ba gisoo benn jafe-jafe nag su boobaa nag man nga ne ah ndax kon ci biir camp ba amul lu fa xew lu mel ne ñuy fipp ci biir xeet yi mel noonu su boobaa nag nga doog a gëstu la ca xew doog fa andi saafara caaxaar noonu la mel soo seetee nit ki maintenant nga xool seet ko tànkam xool fépp gisoo lenn war a tax mu war a am ay caaxaar su boobaa kon mën nga jàpp ne caaxaar yi seen bopp ñu am feebar nga doog koo gëstu ndax lu mel ne feebar tuberculose dina war a caaxaar lu mel ne feebar cancer caaxaar sax am na dañuy wax lymphome waa bu commerçant bi seetee def analyse yi ci war dana xam ne kon càqal seen bopp ñun ñu wérat mu indi ci saafara waaye bu dul lool rek dañu war a jàpp ne am na fer bu nekk ci suuf càqal yi di camp militaire bi commencé di jëflanteeg moom mooy tax ñu mu yokk ànd ku tàngoor ànd ku métit ngir aar la ci jàngoro jooju bu ko rëccee nag ba romb ko mën naa yéeg ba jàll ci yokk gi jàll ci bopp bi bopp ba mën naa andi yeneen mbir ba nit ki sax ñàkk ci bakkanam kon loolu moo waral kon ñu war a xam ne suñu borom def na ci nit loo xam ne balaa muy juddu sax nekk na kaaraange waaye itam ci doomu aadama pexe yi ko yàlla jox kon dana gën a góorgóorlu gën a fagaru gën a yokk ay pexe ba liir bi balaa muy juddu mu fekk fi kaaraange goo xam ne su juddoo dana mën a dëkk ci àdduna su am jafe-jafe loolu mi ngi tàmbalee ci mu ngi jëflante yaay ji def li ñuy wax consultation prénatale maanaam saytu yaay ji ci bi mu ëmbee ndax ëmb bi amul benn jafe-jafe boo xam ne bu ëllëgee mën naa gàllankoor yaay ji naam waaye rawatina itam mën naa gàllankoor doom si loolu mooy waral ñuy ñàkk sax yaay ji ñàkku tétanos ndax bari waa na liir yoo xam ne bu ñuy juddu waxtu wa ñuy dagg biir nekk diggante seen jumbox ak àndu yaay ji foofu lay amee feebaru tétanos ba boo deful ndànk rek balaa ñu koy ngénte mu faat moo waral ñi ñàkk yaay ji ngir aar ko ci tétanos bi moom yaay ji naam waaye itam aaraale doom bi ci xeetu tétanos yooyu nga xam ne mën na koo dal te ba muy juddu beneen itam ñu jox yaay ji fer fer moom mooy weñ rek dafa bokk ci li nga xam ne matière première deret la loolu tax ñu ko jox yaay ji ngir mu am deret ji doy ndax jigéen su manqué deret naam dana ko indi jafe-jafe waaye su ëmbee doom ji mën na caa jóge nekk doom ji tuuti doom ji lompañ doom yoo xam ne mën naa judd manqué dara wala manqué sax am xel ci loolu tam lañuy aar yaay ji ci wàllu siburu dafa ko lu ñuy wax traitement directement observable jox ko mooy ceeb garabu siburu rawatina bi ñuy wax fansidar mu ñetti comprimé yooyu ñuy joxe ci booy wisitu liñ ci jublu itam ginnaaw sànke dañ naan la na ko takk ngir mucc ci yooyu yi nga xam ne ñooy wàllante siburu lañ ci jublu itam mooy lépp lu duggoon saw yaram ci siburu lu mu néew néew mu teel faa jële ndax su fa nekkee mën na tax yaay ji manqué deret te su deret mën na ko jural doom bi tuuti wala sax yeneen def def ci loolu itam danañ defal yaay ji ay analyse bi ci gën a ràññee mooy bi ñuy groupe sanguin groupe sanguin xam ngeen doomu aadama ne am na groupe bu deret nga xam naa sa deret groupe nangam la ñaa groupe A plus wala A moins wala B plus wala B moins wala ñu boole ñaari ne A B plus wala ñu waat ñaari ne A B moins wala ñu ne O plus wala ñu ne au moins boo déggee plus mooy am na lu ñuy wax antigène loo xam ne daal ñu ngi ci biir deret bi ba tax ñu mën a xàmmee deret ji boo déggee nag li ñuy wax résus bu fekkee ne dañ ne moins loolee may wax loolu amu ci yow amoo ko li tax analyse boobu am solo mooy bu yàlla dogaloon yaay ji nekk moyen ndax da am lu mu amut mu sëyeeg koo xam ne moom dafa am groupe sanguin plus lu mu loo xam ne yaay moom amu ko su juree doom doom joojee di juddu su fekkee dafa jël plusu baayam bi am la xam ne yaayam amu ko waxtu wi juddu deret yi jaxasoo diggante doom ak yaay doom ji mën na faa bàyyi tuuti ci deretam loo xam ne su duggee su ko deretu yaay ji jëlee da cay fekk loolee nga xam ne yaay ji amu ko woon ba tax ñu naan doom ji ak baay bi plus naan yaay ji moins su boobaa yaay day jàpp ne bii kat am noonu la bokkul ci man mu daal di liggéey ay ngànnaay parce que yéene attaqué loolee nga xam ne doom jaa ko fa bàyyi te yaay ji amu ko xamu ko faagaagal loolee waaye la cay jafe-jafe bi mooy dafay bàyyi nag naa yam nga xam ne moom la jot a defar ba stocké ko li ci yéeme nag mooy ngànnaay yooyu dafay toog def fa kon su ëllëgee bu yaay ji ëmbaatee doom joo xam ne dafa mel ne doom ji jëkk am loolee nga xam ne moom la yaay ji doon xeex bokk ci gàttam su doom ji nekkee nangam police rek bertu yaay ji day daal di yónnee ngànnaay yooyu mu attaqué doom bi awarteel ko loolu mooy waral ngeen di gis jigéen koo xam ne day am doom benn yoon jaare jaare ci ba faw di awarté di dem rek ñu dafa jaafir di ko jiñ lu ne loolu mooy waral nag léeg-léeg jigéen juddu doom juddu ñu am ay jigéen yi bindal yaay ji ngir am luñ koy aar kon ngeen gis ne analise yooyu lu am solo la ci loolu analyse yi mën na wane benn feebar bu ñuy wax tos cérébral feebar boo xam ne su ko yaay ji amee mën na koo bañ a wàññi dara waaye doom bi nga xam ne moom la ëmb mën na caa jóge mu gumba wala mu am yeneen jafe-jafe te yéeme ci feebar boobu ñuy wax ectoxoplasmose yu mel noonu léeg-léeg muus ci boppam moo koy wàlle muus ñëw fekk sa ndab mu mar ko bàyyi sa jàngoro jigéen ñi wéru def ci ñam lekk ko jël jàngoro yi wàll ko doom bi nga xam ne moom la ëmb léegi nag ñu jàll ci deuxième bi mooy su xale bi juddoo su juddoo ci maternité ndax léegi loolu la ñu santaane da ngeen gis ne dañ ko def léeg-léeg ay antibiotique dañ ko defal ci bët mu nekk lu mel ne ay toq yoo xam ne moom oréomycine bi xamoon benn la lañ ca jublu mooy ginnaaw yàlla dogalee muy am ci kanamu yaayam jàngoro boo xam ne jëlee na ko fa su laalee ay bëtam dañuy ragal ëllëg mu indi ko jafe-jafe bu ko mën yóbbu sax ci silmaxa moo tax ñu koy defal antibiotique yooyu ngir aar ko ci bépp jàngoro boo xam ne fortaatu woon na ko ci yoon wi mu jaaroon li ma waxoon itam bu fekkee yàlla dafa dogal yaay ci boppam buñ defee analyse ñu gis ne groupe sanguin bi mu am moom dafa am moins masalan a a moins wala b moins wala ab moins wala o moins te fekk borom këram plus la doom ji nekk plus dañuy daal di am piqûre bu ñu bindal yaay ji bu ñuy wax sérum anti D ñu bari dañ koy sànni léeg ñu bindal leen piqûre bu bu xaw a cher lu doom ji juddoon bind ko lañ koy piqûre yaay ji lañ ci jublu mooy la fa doom ji jotoon a bàyyi ci deretam yaay ji man koo jàngat ne bii te lii de xawma ko liggéey ay ngànnaay yu fa jële bàyyi fa stock ngànnaay boo xam ne bu ëllëgee su doom ba rey jaarat wari ware bu ëmbaatee doom ngànnaay yooyu mën naa attaqué doom ji faagaagal ko muy awaati dem boo deful naaj ci den doon lu njëkk am la yem loolu ci war ci wàllu aar ka war a juddu ëllëg dañuy jëfandikoo pikir boobu ngir mu jële fii li fi doom jotoon a bàyyi ba yaram bi du ko xàmmee bay liggéey ay ngànnaay yu mel noonu ba bu ëllëgee bu mën a ëmbaat doom ji mel ne jii fi jaaroon te du fa fekk benn ngànnaay boo xam ne yaa ji liggéey na ko ba teg ko fa gis ngeen itam ne xale bu juddoo ñaare bu doxee tuuti rek dañ koy defal ñàkk bu wax anti hépatite B nga xam ne hépatite B lañ koy aar dafa bokk ci feebar yi nga xam ne dafa commencé bari te mën na koo jële ci lu yomb ci gaañu ci loo xam ne amoon na hépatite B wala yaay ci boppam amoon ko ngir bañ koo wàll ñaare dañu koy defal ñàkku hépatite B su juddoo rek ci saa si waaye itam ci suñu aada cosaan dañuy gis ne am na yu ñu tàmm def yoo xam ne boo ko seetee ba ci biir xeetu ñàkk la mën naa ci lim li ñuy wax toxental xam nga liir bi doo di juddu mu kàllaf jël xalimaam xalima ga yor na koy fan dana tegu ci suuf dana tegu ci kawam dana tegu ci kaw ay téere mu xëcc aw kayit fëgg daal di bind jàmb ak loxoom def ko toxental def ci butéel wala kaas jox ko xel jox ko liir bi doon juddu kooku ci wàllu docteur mën nañ jàpp ne allah kulli xaal doomu jàngoro mën na caa rax waaye nag kii di wax di taal bi moom mën na jàpp ne itam bu ca raxee itam ñaan mi nga xam ne mooy mbirum baatin moo ci aar gone gi waaye bu fekkee ñu dañoo jàpp rek ci wàllu docteur dañuy jàpp ne doomu jàngoro mën na caa rax bu ca raxee nag doos ba mën naa néew néew goo xam ne yaramu xale bi dana ko xeex dindi lépp lu ci nekkoon ci jàngoro bu ci rax ci toqental ga su ko dindee bàyyi fa ngànnaay yoo xam ne day daal nekk kaaraange ci xeetu ñaw yi nga xam ne raxoon na ci kon déjà xale bi doon juddu ñu ngi commencé di liggéey ay ngànnaay di teg ngir aar boppam kon toqental googu itam day daal nekk xeetu ñàkk xeetu ñàkk am na ñoo xam ne dañuy jël tàndarma yëy ko am luñ ko booleel yàbbi ko ci kaas segg ko jox ko xale ñu doon jur def ko toxantam loolu yëpp ci pexe la yoo xam ne dañuy jàpp kon ne aw ñaw mën na caa rax doomu jàngoro boo xam ne xale bi boobaa bu ko xeexee bi ni ko ci yaramam da daal nekk mel ne ñàkk ci moom ñu ñëw ci ñetteelu ponk mooy xale bi su rombee su juddoo nag ba commencé dëgër diggante boobu nga xam ne mi ngi commencé nekk parental di raam ak yooyu bu war a àgg nag ci euh, war a dugg école wala dem ci daara alxuraan diggante boobu ba xale bi tombee tollee ci raam am na la wala fi di faral di wax forcex forcex am lay doxantu fu ne mu raam fa dugg fa lu mu far def ci mu mel ne gémmiñ gi lay jànge àdduna waaye ku ne xam ne na yooyu muy for di sex ak baaraam yooyu muy teg ci suuf di raam di raam ba mu yàgg mu jël ko di ko macc di ko sex di ko macc ndax li muy saf xorom ak yooyu loolu yëpp xeet la yoo xam ne dana indi ci moom ay microbe yi muy fortaatu ci fi mu dëkk donc noonu muy defee forseex itam xeetu ñàkk la ci xale bi ndax mu ngi jox yaram ay microbe yu ndaw yaramam di xeex microbe yooyu di ko génnee di fa bàyyi ay ngànnaay yoo xam ne da koy aar waaye nag ñu wax ne itam nag foofu bu fi nit ki tollee kon am na risque xale bi di feebar léeg-léeg daw wala mooy mu jekk-jekk di wàccu wala yeneen sax di ko dab kon nekkul loo xam ne koy favoriser dañ daa war di am waaye dañuy jàpp ne lu suñu mu jàng ko war anam bi ci loolu itam kon da ci amaale lu koy jox karange waaye nag ngir yaramam mën a xeex ak loolu muy dugal ci yaramam di ay microbe jëlee ko fa bàyyi fa ay ngànnaay dafa laaj xale bi ñi di ko jox muy lekk lekk gu riche lekk gu équilibré maanaam lekk goo xam ne daal dana am lu jóge ci lu mel ne ndawal am lu xaw a niin am lu sax mel ne ay ay mel noonu mën a dëgër mu mën a màgg yooyu muy fortaatu ngir mu mën cee mucc mu daal di nekk su boobaa kon lu am solo ci moom mooy day nekk xeetu ñàkk loolu mooy waral sax ngeen gis ne xale yi nga xam ne dañoo juddoo ci àll bi ñaari ñooy gën a dëgër xale yi nga xam ne dañoo juddoo ci taax yi ndax ñu juddoo ci taax yi ci famille yi nga xam ne am nañ man-man am nañu amu àdduna dañuy aar doom yi ba ëpp ba daanaka suñu génnee rek loo leen xose rek ñu daal di feebar kon li ma waxee ne kon fexe ba sa doom di lekk lu baax lu koy aar la kon malnutrition boobu tam da indi faiblesse maanaam xale bu lompañee ndax lekk gi muy lekk baaxut nga gis karaw gi tasaaroo munta sëq nga gis ne dafay mel luy xaw a xeereer ndax man ci deret nga gis ne foo ko gis day naqari deret ndax ñàkk lekk lu baax nga gis ne cër yi day tuuti nga gis ne biir bi dafay rëy ndax ñàkk lekk lu baax léegi fu mu toll na ngay bët yaa yooyu ñàkk lekk lekk bu baax dana ko waral ci gone ba lépp lu ko somm ci jàngoor rek loolu koy ëpp doole waaye itam ki nga xam ne dafa am moyens ba mucc ci loolu itam su dee lu ne xosi rek mu jël garab jox doomam bu ne oxo xëcc antibiotique jox bu xaw a yaram tàng tuuti mu jël ay paracétamol jox ko yóbbu ci docteur ñu bind di ko jox dem ba dugg ci li ñuy wax hypermédication nga xam ne dañ koy jox garab ci lu ëpp loolu tam day yi nga xam ne moo nekk ci gone gi day mujj tayal dañuy mujj tayal tayal xam ne euh, stocku ngànnaay du bari ba gone googu lekk lu baax juddoo ci taax yi set wecc itam day daal di néew doole naka ca àll ba te munta lekk lu baax kon nit dafa laaj diggu dóomu ci wàllu woowu kon lu laal sa doom rek nga jël yóbbu hôpital lu laal sa doom nga yóbbu ca poste ba bari jàmbat moom da yaram bi daa tàng moom da day sëqët moom da day waccu moom da dafa tuuti boo toppee ñi nga xam ne duñ bàyyi xel ne li ëpp ci jàngoro yi ci ci li ngay jàmbat benn feebar képp moo ko waral que su ma fajee feebar boobu ci benn ñaari garab fàtte yeneen màndarga yi mën naa wér boo fekkul docteur bu xaw a lu ci lool rek da lay topp ci sa bëgg-bëgg garabu tàngoor waa ngi nii du koy feral garab bi sëqët moo ko tax a jóg dana ko dindi garab bi antibiotique bii ay vitamine la dana tax moom appétit bii da dolli kàttan daal nga daal di am juróomi garab juróom benn garab garab yooyu day mujj wëlbatiku nag mel ne am noon far ci gone gi di ko néewal doole ci loolu am na suñu benn professeur ñu ñuy jàngal wàllu garab dafa am ñu waxoon ne boroom xam-xam moo ko jàngale woon ku ku amoon ku siiwoon ci àdduna bi ci wàllu pharmacie mën nañu woon kooku dafa wax ne feebar benn garab moo koy faj waaye su fekkee am na màndarga bu mu àndal comme tey yaram bu tàng wala wàccu mais na caa dolli beneen buy dànk loolu ngir garab gi mën a am njëriñ médecin bi la bëgg nag ñetti garab benn bi lay faj gi nga mën koo jëfandikoo mën laa dànkal saw tàngoor wala sa wàccu ak benn boo xam ne dalay accompagner gën la may kàttan wala yu mel noonu waaye du ko romb mu doon wax ne kon médecin bu la bindal ñeenti garab nag dañoo war a koo yëgal kilifaam comme tey ba doon hôpital dañ ko war a wax directeur hôpital bi ne ko ah kii kat bindal na ma ñeenti garab bu la bindalee juróomi garab waaye su koo nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu médecine su mel ne ordre des médecins xool ndax kii moom wala su xoolaat njàngam wala tere ko faj bu la bindalee juróom benn nag dañoo war a woo procureur de la république ah, bëgg a ci askan mu ne bu la bindalee juróom-ñaari garab nag kooku dañ ko war a jàppoo jagat jagatee ku yóbbu ko fa ñuy faje ñu am feebaru xel kon <laughs> loolu misaal la muy waaye ne kon bind garab yu bari amul njariñ ci nit wala loolu weesu nag kon ñu dugg ci ñeenteel ponk mooy xale bu demee nag ba dëgër mu ngi jàngi dama ko dikk ba ba muy àgg ci waxambaane foofu nit ki dafay génn ci loxoy waajuram daanaka xaw a moom boppam tuuti léeg-léeg muy léeg-léeg mu diñu añ yenn ci biti di football ak daf kenn xamul dem fuñ ko dem la wut di foofu ay rabu àll ay rewkat ak ay muus ak digganteem ak moroomam digganteem ak mag léeg-léeg di wax dajaloo fenn ku ne di sànni sa moroom ay tuflit yooyu yëpp di ay microbe yuy paasante ak yuy jële ci rabu àll yi ak yuy jële ci ay gaañu gaañu mën a indi ci nit ki mu fàbli ci ay liggéey ay ngànnaay yoo xam ne daf koy aar ci xeete microbe yooyu muy fortaatu ba mu am stock ngànnaay boo xam ne dana ko musal ci lu bari waaye nag su ko ëppee doole nag tëdd dafay daal di am te boobaa faj da ci daal di jaar kon faj moom ala kulli xaal dafay am kon yooyu ñuy wax résistance naturelle nga xam ne nit ki daal jànkonteem ak anam beeg jur geeg doomu aadama yi ñu koy am ñu koy wàll mi ngi xeex yi yañ koy wàll bay liggéey ay ngànnaay yu ko mën a musal ci wetu loolu itam léeg-léeg jàngoro bari doole ba ëpp nit ki feebar mu tëdd su boobaa faj day daal faj jaaru kon nañ ko bàyyi xel léeg-léeg itam sa ngànnaayu bopp bu fekkee li lay dal dafay répété wu mën naa ci jox misaal bi ci gën a fës mooy feebaru angine bu fekkee nga xam ne angine boobu dafay répété lu baree baree bare mu feebaru waxu boobu soo mbokk cekkee leen ñëwee ni di takk ay fas rek fasu xonq fasu fas gu weex mélangé angine angine bu yàggee microbe bi nga xam ne mooy joxe angine ñu koy waaye ci médecine streptocoque bêta hémolytique du groupe A dafay microbe boo xam ne na ko seen boroom bindee dafa niroog suñuy kujum xaw niroog itam suñu walfa yi nga xam ne ñu ngi ci biir xolu nit ndax xolu doomu aadama dafa def lu mel ne ñeenti kër diggante këram moroomam am bunt bu tëjëk tijjeeku bunt yooyu nag nam bindoo dafa niroog microbe boobu nga xam ne mooy joxe angine ba tax na buy répété wu dañuy wax angine en répétition buy répété wu di am tout le temps angine angine angine yaram bi di fabriquer ay ngànnaay di teg di liggéey ay ngànnaay di teg di bu yàggee ngànnaay yooyu bu ñuy xeex microbe bi dañuy dem ba jaawale microbe bi ak euh, dañuy microbe bi ak Walf yooyu nga xam ne ñu ci biir xoolu nit mën nañ koo jàpp kon Walf yooyu di ko ŋarañ di ko ŋarañ bu ko yàggee bunt boobu dootu mën a tëju na tëjoo deret yi di jaxasoo deret a jóge bunt bi ci néeg dugg ci beneen néeg ba mujj di jaxasoo ba ci néeg boobu di dellu si ginnaaw di dellu si waat di ñëwaat ci néeg bi ñu déparé woon mu andi ay feebaru cardiaque yoo xam ne mën na yóbbu nit ki ba ñu obligé opéré ko xol ngir changé buntu yooyu di ay walfa kon nga xam ne kon su boobaa nit ki soldaar boppam ñoo ko xeex ndax jaawale cëram boobu niroog micro boobu moo tax xeetu feebar yu mel noonu mel na ay angine yooyu répété dañ koo war a teel bala muy agsi ci lu mel noonu am yeneen yi wax maladie auto-immune nit ki bu dee jànkoonte ay feebar tout le temps lii ma waxoon ci sànq bii mën na ko dalal dem ba mujj yaramam liggéey ngànnaay yoo xam ne daal dañuy attaqué nit ki rek di yàq ci moom di yàq ci moom ndax xamatuñu lañuy xeex xamatuñu ko waaw loolu dañ dem ba feebar yi ñuy wax ay myasthénie nit ki dem ba nga xam ne daal day gaaw a sonn bu takk seen jotee du mën a ci dara xeetu feebar yooyu léeg-léeg mën na départ ci ni ko borom xam-xam yi waxee. ci ay virus yu dugg ci nit ki dem ba yaramu boppam mënut a xàmmee ci virus bi ak yaramu boppam mu indil ko gàllankoor yu mel noonu nit ki su dee ko ni dund ba nekk mag nag xam ne àddina ci war a denc soxna wala ñu denc ko bu dee jigéen war di booloo foofu su boobaa ay feebar sëy ñu wàllante mën na faa xew yu mel ni ñuy wax ay syphilis waaw wala lu mel ne feebar hépatite nga xam ne foie lay jàpp walla lu mel ne sax feebaru sida wala te mën na am foofu waaye feebar bu bu ci mën a doon suñu boroom def na ci nit loo xam ne dana am toujours ay doomu aadama yu ci rëcc gis nañ ba taay ñaar ñu sëy ay ati ati at ki am feebaru sida mën na nekk jigéen ñi wala góor gi wala mu am feebaru hépatite B mën na nekk jigéen bi wala góor bi waaye taxul keneen ki jël ko mooy luy jaaxal docteur yi léeg-léeg borom moo ko doxalee noonu naam yenn feebar yu sëy yi mel ne surtout wàllante pour mu am léeg-léeg gaañu gaañu da yombal waaye xam nañ ne itam ne du ñàkk ay nit ñoo xam ne yàlla def ci seen yaram loo loo xam ne mën nañoo jël ci xew boobu sax ñu bindi ko te kenn ko xam doomu aadama nag su nekkee mag kon fagarul boppam day bokk ci li nga xam ne daf koy aar du yem rek ci li li xale yi def xale yi forcé xaka nangam nangam di am ay soldaari boppam moom daa war a weesu loolu kon daa war a fagaru ngir dimbali yaramam di war di faju te na mu teele bala muy ëppi loxo waaye itam dem ba léeg mu tuxal lépp lu ko jege loo xam ne daf koy wàll lu mel ne jur goo xam ne dañoo feebar gis nañ ko fi lu mel ne Europe nag yooyu jàppoon di leen faagaagal ndax dañoo amoon feebar bi ñuy wax kësfèr de Jacob nga xam ne ci jur gi lay jógee di ci corona bi xam ne ci ndoorte la dañoo jàpp ne ci jur la jóge dem ci nit ba tax léeg-léeg ci xeetu fagaru ci xeetu faj ñu def li confinement jël ñi mu dal ñu war ndomba tere leen a génn ngir aar yi nga xam ne jëlaguñ ko foofu itam ma ci wax di taxaw ne li ñu gis mooy doomu aadama yi ñu ko gëm lépp lu yàlla tere rek luy lor li da caa nekk tey bari feebar yu dal nit jóge ci jur dem ci nit boo ko toppee ba ci biir diine yi rawatina mel ne lislaam da koo tere ñi di ko lekk buñ ko dee lekk rek da ngay daal di gis ne bu ëllëgee am na feebar boo xam ne ci jur googu lañ ko xamoon mu jub toxu ñëw ci nit mag mi nga xam ne itam day aar boppam kon dana jëfandikoo léeg-léeg ay ñekk mooy góor gi gis na ne soxnaam am na feebar hépatite de mu dem jël ñàkku buy tax mu am ngànnaayu hépatite B wala jigéen nga xam ne ne boroom këram am na hépatite B mu jël ñàkk ba koy aar ci B loolu di wax nag kon ne malgré li nga xam ne ay ngànnaay la yoo xam ne yaram bi moo koy defaral boppam ci li muy jànkonte anam bi malgré yi nga xam ne dañuy am lañuy doxale suñu digganteeg lépp luñu mën a wàll muy ak jur muy nit malgré li nga xam ne ay ñàkk la muy tax buñ ko jëlee mu dol mu ñu liggéey ay yi mën a aar téewul itam léeg-léeg faju du mënta ñàkk ndax loolu nag te nit ki su fekkee dafa jóg dara ci yaramam mën na bañ a def fu mu toll rek dem hôpital déedéet waaye am sa kër lu mel ne lafu paracetamol lu mel ne bandage ñu mën a pompe goom man koo man ko muur yooyu léeg-léeg wàññiwul dara lu ñuy wax boîte à pharmacie am ko sa kër boo nee ci pharmacien moom dana la wax lan moo ci war a am ak lu ci wërta am ngir su la dala gàllankoor yi guddi wala sa doom wala soxna wala heure boo xam daal xëy na ci dana jafe wala poos bi diisul nga mën a jëfandikoo yooyu waaye nag loola bu ca yàgg su nay romb ay waxtu wala ay wala bis li ci gën mooy nga dem jege ji ah, baru fajukaay ci amul lool ci kanam itam mën na léeg-léeg su ko dara gàllankooree nga mel ne jékki-jékki boppam bi metti yu sew sewaan mu dem ci pharmacie bi li ñuy wax pharmacie conseil waaye foofu itam ñu bañ fee ëppal xam ne pharmacien du seet pharmacien du bind ordonnance pharmacien dafay joxe garab li ñuy wax délivrance bu ko woowee sax jaay joxe la ñuy wax joxe délivrance de médicament kon pharmacie bi li mu mën a def mooy li ñuy wax pharmacie conseil nga ñëw mu seetala sa tension mën na jàpp sa baaraam xool sa sukkar mën na nekk mën na laa peese mun na laa jëlee sa tàngoor yaram li wax wax constante clinique yépp bu loolu weesoo la lam ci def mooy am na listu garab yoo xam ne na droit joxe ko ngir dimbali diggante bu gàtt mu am jàmm daal lay conseillé léegi na nga dem hôpital wala sa tension bii kat laaj na garabu mënu ma la ko jox ndax man duma jaaykatu garab joxe katu garab laa te su may joxe ci kaw ordonnance bi nga xam ne docteur bi ne rek mu am droit bind ko ci loolu a koy teg kon demal hôpital ñu seet bu dee nag koo xam ne am tension nag daan naan ay garab indaale ordonnance ak boitu garab mooy waaye ne lii da ko daan naan su boobaa moom pharmacien am na droit ne ah comme lu muy naan biir dundam la jox ko mu continuer du nekk ngaañ ci moom ñu koy dimbali la kon mën na koo jox waaye nag ne ko ci man nag na nga dellu na ci sa docteur luy baale ko kon foofu la ñu yemale waxtaan wi duggul ci lu gàtt rek ci wàllu ñett yi xam naa luñ ci sori ndax am na suñu mbokk bu ci war def waxtaan bu yaatu incha allah dañ koy bàyyi moom di wax na ñàkk li ma fàttali ci ginnaaw lu bare bare kon xeetu ñàkk la am na ñaari xeetu ñàkk am na ci ñàkk yoo xam ne ñuy wax vivant atténué moom day nekk doomu jàngoro boo xam ne mu ngi dund nit làpp ko jëflanteeg moom ci wàllu laboratoire ba dooleem jeex dutu amati daanaka doole jël ko defal ko nit ci yaram ngir yaramam xàmmee jàngoro bi mën a liggéey ay ngànnaay ngir xeex ak moom bàyyi fa stock ngànnaay waaye jàngoro boobu ñu wàññi doole def ko ci yaramam mënut a feebarloo nit ki waaye ñàkk maa doon na yaram mi di jëflanteeg moom dana waral ci waxtu yu yi aw metit wala aw tàngoor tuuti boo xam ne du ñaari du yàgg moo tax nga gis saa bu liir ñàkkoo bëccëg moom bëccëg guddi daanaka du am jàmm ndax jooy ndax metitu pikir ba ak junni junni foofu ñu pikiroon nga xam ne réaction la yàlla mooy xeex ak lañ fa ngir génne ko fa xeetu ñàkk yu mel noonu ñaari yu ci ëpp sax dañ koy jëfandikoo waaye am na ñoo xam ne ñaan ni ko jël lu mel na jigéen loolu ak ñi nga xam ne dafa am mel ay feebaru yenn yi ba ñëw kàttan mu ëpp lu mel ne feebaru sida ak xeetu mel noonu am ci ñàkk yoo xam ne ñuy wax vaccin inactivé nga xam ne dañ koo rey complètement ñu jël ko lépp muy néewu microbe ba pikiir ko nit mën naa ci joxe pikiiru ñàkku euh, njàmbutaan ñu wax coqueluche kooku jàngoro la ñuy rey ba mu dee jël ko lépp dugal ko ci yaram moom a fabriqué ngànnaay buy rey jàngoro yooyu mën koo aar ci ëllëg ba du feebaru njàmbutan boobu du ko dal léeg-léeg itam dañuy jël jàngoro ji jël tuuti ci mbubbam moom sol wala tuuti ci yaramam wala tuuti ci la nekk ci biiram def ko ci def ko pikiir pikiir ko nit ci ngir mën a liggéey nga naa ñu jàng mu ñu jàmmaarloo yooyu technique boobu lañuy jëfandikoo ci hépatite B moom lañuy jëfandikoo itam ci tétanos waaye itam léeg-léeg ñu jël lu mel ne xeetu virus am luñ ci jël ci biiram loo xam ne du wàññi kenn lenn liggéey ko ba mu ni mel def ko ñàkk technique boobu la ñuy jëfandikoo ci corona bi mu ñàkk ko coronavirus yi kon wax ne ñàkk amul danger ni ku nit ñi di jàppee ni ñu koy waxee léeg-léeg ci réseaux sociaux yi mel noonu demewul foofu itam wóolu sa docteur da ci am solo ndax liñ ciy wax bu doon moo am kon bay boo ñu tëj barab fajukaay yépp ndax yaakaar naa ni bu fekkoon ne pexe def ci nit dara dong la kon man sa ko jaare feneen ku dul ay ñàkk jaale ko ci lekk yi jaay ci biti yi jaale ko ci bépp garab bu ñu joxe hôpital te gisaguma ku ñëw hôpital ñu war ko opérer wala opérer mbokkam mu ne damay dugg ca salle opération ma xool lu ñu koy defal wala nga ñëw urgence ñu ne piqûre bu ñu yëkkati nga ne ma xool ko kon su fekkoon ne ay jëf jëfandikoo yoo xam ne lor képp moo tax liñ koy wax ci ñekk yi mu am kon yaakaar naa ne jaare ko ci yeneen pexe day yomb lool kon loolu dara amu ci ñekk lu am solo luy amit loolu ñekk moo fi jëlee feebar yu baree baree bare yi nga xam ne daan faagaagal xale yu ndaw yi bañ naan soxna diw dafa jaasir wala dafa bolle ba tax yenn tur yi daan dégg ay ngeddeeg ay leemoog ay turu bon yu baree bari yoo xam ne dañ koy dégg ay sarax yàlla yooyu yëpp li ko waraloon mooy ci sunu maam yi dañ daan jur di suul rek te feebar yu mel ne jàmbutaan xuret ñas jàddaaral sëqët bu bon bi xeet mel noonu képp mu daan dal gone yi leen faagaagal ba ci tétanos te léegi ñàkk yi ñu fi jëlee ñëpp tamit seen bët ba ci feebaru lafañ kon nag foofu la yemale waxtaan wi ñu leen sant bu baax ñu gërëm di sant waa daayira xidmatul xadim warusoli ay jàmbaar lañ lool ci li def ñaan yàlla yàlla na leen yàlla fay